du matin 8 jot na xabaar yi ci wolof ci gàttal El Hadj Assane Gueye asalaamaaleykum El Hadj. waaleykum salaam. xaaj <laughs> nga doon jooyanti déedéet comme da nag yàgg sa gan gi da ngeen di dem ba mu jeex. dee ma may nag ma toog. <laughs> waaw waaw acca bisimilah. jéggalu jaajëf sëñ <laughs> Fall mbokk yi ñu ngi leen di ziar rafetlu bu baax ànd beeg RFM xibaar yi bokk na ci njàng meeg tolluwaay mbootaayu syndicat yi di G20.

càkkutee fak mais levé gi avocat bëggoon ci moom ex président bu I2AF euh, di wéy kon foofee ci Paris ba filé que 3 juin euh, ci lañu ñu dàq atte bi union nationale mareyeur yu Sénégal ci gréew ëllëg lay doon ñoom dañuy ñaaw lu ñu ne mooy yokkute gi ñeel li nga xamante mooy taxi bi ci charge à l'essieu ñeel camion frigorifique yi ca Mbour it euh, naka noonu it Saint-Louis noppi nanu ngir daldi di dakkal yëngu yi ñoom mareyeur yi di rëb ñett ci ay fan sport gi Malal Junior Diagne la ñu ci andal walu ko caada haji Ndate Diop yene kay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye ci technique bi Abdoulaye Diop. ñu tambalé xibaar yi ndaje bu ñëk bu comité pilotage dialogue national di amal tay ji lay doon ci salle de conférence bu e étage building administratif euh, bi ñu duppé bobé salle président Mamadou Dia président comité bi Famara Ibrahima Sagna ak ñi mu seqandool bobé communiqué fàtt euh, comité ñu fatali ni 26 euh, décembre bi nu génn lañ leen dal di installé taxawal ci palais de la république. Avec RFM, qu'on peut dire. Non?

alxamis euh, kon euh, ñi nga xamante nag ñooy teewal yooyu mbootaay war nañu amalam ndaje ak jëwriñ ju ñu dénk fonction publique soxna Mariama Sarr waaye directeur de cabinet bu boobu ministère fonction publique ne bu sañoon jàngalekat yi indi dal ci mbir yi euh, ndax nguur gi boobaak léegi mu ngi def fi jéego yu am solo yamu ci joxe nay misaal mooy nomination titularisation reclassement bu ñeel ñeent fukk ak juróom-ñetti junniy agent ñu déglu ko moom Mamadou Camara Fall ñu teewlu ko ak Haj Diop li ñuy faral di reprocher fonction publique dañuy wax ne actes yi dafa yéex a mais madame le ministre bu mu installé woo gis nañ depuis daaw que lu mat ñaar fukk ak juróom junni ak juróom benn téeméer yu tegal génne nañ ko ci ay actes te loolu boo ko xoolee dafay nekk ñeent fukki junni ak juróom-ñaar yu tegal yoo xam ne ay agent yu actuels yu concerné la loolu du ñu xëy na peut-être mooy satisfaire gars yi à 100 pour cent mais ay jéego la yoo xam ne ñun ci suñu wàllu bopp dañ ko bëgg gën a yokk en 2019 li ñu génne ci ay actes doublé na li ñu liggéey ci 2018 te loolu yaakaar nañ ne kanam la jëm donc dématérialisation bi nit ñi di wax nekk na depuis quelques années ici à la fonction publique yooyu yëpp buñ ko boolee incha allah dina tax li ñuy tuddee lenteur Euh, mbir mi gën a jëm kanam madame la ministre Mariama Sarr prier ni ñu koy waxee ci olof syndicat yooyu alxames ñu war a daje ñoom fii waxtaan ak ñoom ci poñ yi nga xam ne tënkoon nañ ko ci protocole bi ñu xaatimoon ak gouvernement bi daaw ñu tombé woon fanweeri fan ci weeru avril bu ñu paree ci poñ yi nga xam ne ñun fonction publique moom moo ñu intéressé ñu xool poñ yu yi nga xam ñom indi nañ ko ci préavis ñu jot euh, recevoir fi bu lolu weesoo nak du ñàkk comme weccee xanaat da et c'est des partenaires que yo yoo vraiment ñi ngi saluer sen responsabilité ñu wecc ñom xanaat ci li ñuy tuddee ay questions diverses di profito ñaanale leen aussi surtout que école publique euh, soxlawul perturbation di ñaan leen ñu gëna bayyi xel xalé yi nga xamné ne ñoo nekk ci école yi lepp lo xamné mën nañ ci am saafara ci waxtaan ñu def ko plutôt que d' engager seen yenn natango yi ci ay grève ñu dess euh, ci njàngale mi ba tey ak lu ñeel euh, enseignement privé ci Sénégal ay waxtaan wi ya ngir gëna ñongal bobu boobu ci privé gi dinañ ko amal weeru février wi ñew ministre bi ñu dénk njàngale mi moko xamlé ministre Mamadou Tala Dallo, uh, Kirgui du siège office national enseignement catholique du Sénégal Abdoulaye Diop ak lu ben benn million ci enseignement privé jot na ñu amal ap waxtaan ngir gëna mëna ñongal bobu lepp secteur suñu sukkandikoo ci Mamadou Talla jëwriñ biñu ñu dénk mi. réfléchir ci enseignement privé yan condition ngay ngay tijjee sa école privée xam nga mëno xey rek nga tijji sa école ci bir Dakar nak ak fenen nak ah. donc euh, ak également quels sont les textes moy décret yi ak sa nan lañ koy organiser et li ñu wax né aussi continue bi ñi di jàngale ban niveau lañ wara am donc day melni rek ben rencontre bu mag la symposium suñ si génné ñu jël ay Décision, décision yooyu ay texte ñu war jël ay décret ou bien ay loi mu ñëw doon dalloo siège bu office national enseignement catholique bu Sénégal ministre bi di dalal xel yi ci ministère am ñeel enseignement privé catholique xam ngeen ne enseignement si Sénégal privé la ak public la ma ñëw ànd ak leen éducation nationale mu ngi leen di accompagner mu ngi leen di accompagner ci seen organisation di leen accompagner également dans la reprographie comme ni ma ko di leen accompagner également dans la formation des formateurs parce que ñom am nañu ay enseignants dañu soxla ay curriculum dañu soxla ay formation président bu annexe nekki njiit évêque Boutiès Ernest Sambou jàpp siège bu yees bi Lotti, ci enseignement privé catholique. le siège disons va fédérer. siège bi dina tax ñu gën a boole suñu ay doole mu nekk ab point commun am amon ay temps yo xamanteni bi nak nekk ab force commune bu tax ñu gëna a organiser waaye tamit liggéey bu baax. ki nekk légui archevêque bu Dakar ak kim fa wotu di monseigneur Théodore Adrien Sarr ak yeneen autorité bu jàngu bi. bi teewoon nañ ci inauguration siège bi ñu tabax ko ci lu toll ñaari téeméeri millions si suñu ay koppar. jërëjëf Abdoulaye RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñaari minutes. RFM rajo askan bu bees ci li nga xamante mooy charge à l'essieu ñeel camion yi ci wàllu kon euh, mareyeur

ñoom ñu mer benn fotu ñu wane ko ci quai de pêche bu jàmmalaay bi ñu dajee woon. moom bascule bi mooy suñu problème dem nañ fa waxtaanoon ak moom mu ni dina xool solution avant ñu fay demat mu jaar ci ginaaw ni ko gaay d'accord nañu te kenn d'accordul ben mol mënu fa ben licence am def ci 1 million huit ak ferem ba paré bu téré gaal gu jëpp gën jën 1000 kees wala 800 cent bu fallu fall ñëwé bu gaalam téré fallu yobu ci lu cent cinquante kees ba tour jën ya Macky Sall la ci wax am da bëgg mool yi dellu ginnaaw ak mariéri dañuy garaw 72 douze heures bu fekkente ni lii saafara wul gaal du tëmb auto du yëpp ñëpp dañuy xëy di tëdd marché ubbi. ñaxtu yi sax dem ba ci Thierno Mbengue mi nga xamee ni considéré wuñ ko comme ku leen war a waxal ci kanamu gouvernement bi lee. Mouhamadou Gueye ñun ñoo ngi bokk ci collectif national di mareyeur du Sénégal Thierno nag dégg nag la mu wax fa Kayar waaye bu nu ma yàlla mayee jàmm ak tal ak fekke bala 15 dina xam ni moom mareyeur la wala du mareyeur. ci ministre yi lu ñu fa wax mu yàqu ko lu ñu fa defar mu yàqu. mais Thierno bu fekkee dañoo fab seen ko Thierno Mbengue muy fab yat di dóor suñ dañuy lànk ba tëdd ca gannaaw ba ñu nekkee ak Bassirou fal te nangu kilifteefam lépp luy nappkat transformatrice ak mareyeur yi firndeel seen bëgg-bëgg dem ci ñett fanub grève li ko dooree fukki fan ak juróom ci weeru janvier bi lee RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabisila Mohamed euh, Mareyeur Mbuurit euh, naka nonu fas nañ yéene li d'igna tàmbalee ëllëg euh, dugg cib grève di ñaawlu jëm ci taxe pesage ak it di carte yi di carte bu nu validité gi ñu dal di ko gën Abdourahmane Diallo mi conférence de presse de ginnaaw ay waxtaan ak ay nit ñi nga xam ni jéemoon nañ ci dox tànku jàmm teewul mareyeur yi li ñu bëggoon a def ci la ñu ne ba léegi ndax nag fas yéene nañu toog ñetti fan yi nga xam ne dinañ ci banque seeni loxo Fallou mbay kenn la ci Union nationale des mareyeurs du Sénégal. waaw waxtaan nañu ministre bi ba mu am ay faveur yu nga xamante ne si waxoon diggoon nañu ko ni dina ko def boole ñoo directeur de route malheureusement bañ demee directeur de route la defu ko.

benn marché du ci jaay jën incha allah. mareyeur yooyu nag di wax jafe-jafe yi nga xam ni fi mu ne nii moom la ñuy jànkonteel. tracasserie yi nga xamante ni ñu ngi koy jànkontre ci yoon bi euh, moo tax ñu war a dem grève yitte bi nga xamante ni si moom moo ci gën am solo mooy pont bascule yi moo ci ëpp solo ci li nga xamante ni moo tax ñuy grève ndax euh, dañ ñu teg lu nga xamante ni si mënutuñ ko euh, demee négocier nañu ak ministre bi. waaye nag grève bi am na ci ay mareyeur yi nga xam ne wax nañ ni ñoom duñu ci bokk teewul mareyeur yi nga xam ne dañu bokk ci mbir mi te xam le ni seen xeex bi dañ ciy dem ba jeex RFM Mbour Abdourahmane jàlloo jërëjëf Abdourahmane di ñaan ak gindiku ko mooy fekkee nag njawe ni moom jënd na leen jafe ci ay bës yi nu dëgmal leneen ne ay xibaar ak RFM mooy ñu dëkkee il ñëwoon ci Casamance ñoom seen i jafe-jafe bokk na ca mbiram ndox mi ndax ndox mi ñuy jëfandikoo boobaak léegi mooy bi boo ci taw bi ñu taataanoon ko ci mbànd ci weneen wàll ndoxam teen ya daa am melo gu mu àndal bëgg na nit courant courant ci aseer reportage Lamine Ba. askan wa nga xam ne mu ngi yeewoo ci île ci basse Casamance jafe-jafe bi ñuy gën a jànkonteel mu ngi jëm ci wàllu jot ndox mu sell jafe-jafe bi ni mel lañu ñu nemmeeku fa nga xam ne nag mu di ñëw mun mu nekk ci commune bu Kafountine foofee nag askan wi li nga xam ne am nañ ko mu di ay réservoir di fa denc li nga xam ne moo ñu doxum taw mi moom la ñuy naan nag ba nawet dellu siwaat Maurice Badji notable la moo ngi dëkk ci ñoomun ndox bi dafa nekk jafe-jafe boo xam ne kenn mënul expliquer suñu ndox bi dafa amul amul goût dafa somaat amul benn qualité boo xam ne vraiment boo ko gisee nga am courage nga naan ko nag am nañu jafe-jafe bu mag ci euh, tubaab nu ñu koy ne eau potable euh, ci quartier bu nekk ñu installé fa benn système pour ndox taw bi mu mën ci nekk ndax bu noor bi jotee ñu mën ko jëfandikoo mais néanmoins bu nawet bi jotee dañuy jël ñu recueillir ndox moomu ñu taaj ñi am moyen dañ koy stabiliser de sorte que boobu ndox mën nañ ko jëfandikoo en même temps que ndox euh, citerne yi. ñoomul nag ay atangi ni ngi ñoo ngi fa tegee ab matériel bi nga xam ne agence sénégalaise d'électrification rurale moo ko fa indi woon ngir jox dëkk bi lii di courant waaye ci jamono jooju ba léegi gisuñu fa investissement bu jëm ci wàllu woowulee. mais amul courant. waaw azer ñu mosoon na fi ñëw xam. ñaata at la. trois ans wala quatre ans. ñëw samp fi ay poteaux. ba pare bi ñu demee c'est fini poto yaa ngi noonu sax yi ngeen gis nii ba léegi kenn xamul ndax ASER mi ngi dund am déet rawatina sax dañoo ñëw jël seen poto yi samp ko digg suñu yoon yi pour dama jàppale ñu ci courant ñun ndabin ay sénégalais lañu comme ñëpp. am na ay kàddu yu bëri nga xam ne askan ñoo mën yëkkati na ko di sàkku ci kilifa ñu jàppale leen ngir seen jafe-jafe yooyu ñu mën ko saafara waaye ba léegi gisaguñu ku taxawee tànk boobee ba tax na ñu ngi yëkkati ay kàddu di feddaliwaat seen woote woowee nga xam nag ñoo ko jagleel kilifa yi ngir ñu indi leen dimbal Lamine Ba Ziguinchor Radio Futur Média. jërëjëf Lamine wàllu yoon Paris la ñuy wutaleeg lu ñeel président Lamine Diak, tribunal ba Paris daal dina dàq càkkute fukki avocat am jëm ci teg yi li nga xamante ne mooy may gët gi ci wàllu yoon boobaak léegi ñeel ko ngir mu mën a doxi soxlaam ba keroog àtte ba yoon lankal ko ko moom président Diak, ak ci mel Abib Cissé Gabriel Dolé, ñu fàttali rek ne àtte boobee daan ko sumbaat ñetti fan ci juin 2020 leeral ci Paris Cheikh Sidou Sila. Lamine Diack Habib Cissé ak Gabriel dolé lu ñu bëggoon mooy ñu lever seen contrôle judiciaire pour ñu mën a dem di dikkaat waaye juge bi dafa rejeter seen demande moom nag dafa mel dafa ànd ak procureur ndax nee nañu dañuy bañ ñu daw procureur bi dafa ne surtout Sénégal dimbalewu leen ni mu waree ci dossier bi donc lu gën wóor mooy ñu des France pourtant Lamine Diack 86 ans jéem na convaincre cour bi comme quoi amul ben intérêt muy daw di ñu mayu ko mu def lolu waxna aussi ni magom léegi amna na at ben jour dafa don wax ak mom mu ne ko Lamine mba dina la gis bala may génne aduna ci la Lamine Jack ne juge bi dama bëgg sétal sama bop may ma rekk benn semaine ma dem Sénégal gis sama mag Lamine jac Jack di fixé juge bi neko chef de bande buy rançonner athlète li mu wax nak dafa daw yaram wa juge bi rejeté na demande bi mu def. ou donne jokkoo ak fi ci Paris Cheikh Sidou RFM. tàggat yaram Malal Junior Diagne jagn mangi lay nuy Malal. mangi la fay bismillah ak footballu jigéen ñi lañu ka tambalé ña nga ci di wajal seen dig ak wa fe équipe bu euh, Libéria gi ñu wara a joxom ñenti fan ci wéru février jëm ci éliminatoire coupe d'Afrique bi. ñoom danañu kon am leul ci centre Guéro euh, foofu nag danañu fa tagatu waye tam amal ay jongante seen digënté ci yeneeni Program centre programme ga nak nas nan ko bu nopi ngir rek am équipe bo xamni bu mëna a euh, ak wa Libéria lay nek ba qualifier maam Moussa Cissé mooy ki tàggat équipe nationale Sénégal bu jigéen ñi. Euh, ñu tambali ba léegi 4 novembre génn ñu ben yoon donc liggéey bi mi ngi doon continuer bi ñu liggéeyee weer ak euh, genn def nañu ay match yo xamni ni ñun Gambie li doon sabab bi mooy ñu jema xayma liggéey bi nga xamni defoon nañ ko parce que di liggéey rek ci amulo foko naté day am problème ak ñaari match yooyu wan nañu lu bëri ci liggéey bi nga xamni defoon nañ ko ak li nga xamni ni manqué na ci équipe bi ñi ngi sax amoon mébét joué waat ay match amico ñu nak euh, Burkina ba ñoom ñu d'accordone mais après de ñu yobbu dakh match yi ba février mais li nga xam ni moo taxaw suñu kanam nii mooy éliminatoire yi ak match bi ñu war jouer Libéria 9 février ndegam amuñu équipe bu ñu footballal ñi ngi rabaat su si de formation yi génération foot semaine bi passé joué nañ ak ñoom semaine bii di ñëw dinañ joué ak Jambaar jouer ak yeneen centre et surtout li am importance mooy génn xale yi centre pour yóbbu leen ñoom ñu dem fekk yeneen centre yi pour gérer euh, environnement extérieur boo xam ni tàmmuñu gérer ñi ngi filet ni le 9 équipe bi euh, dina dina mën a taxaw ni nga xam bëgg ko amoon nañ ay blessé ñi ngi commencé duggaat si group bi am nañu nag suñu benn joueuse boo xam ni semaine bi euh, dem na France muy suñu excentré bi Astou Ngom numéro 7 bi fi mu ne nii dem na France mais ñooñu ñëpp ñu ngi leen di may bët bu boobaa ñu fexe nan nañ leen di indee ñoom aussi ak ña fa nekk pour ñu ñëw renforcer li nga xam ne am nañ ko fii si groupe bi. ñu jàpp itam ci wàllu rugby gi ñoom itam ña di liggéey programme gu nas muy fexe loolu lépp nag euh, direction technique nationale bi moo ko taxawal tàmbali na liggéey ba euh, ngir nag euh, loola mën a am seen mëbët mooy fexe itam ba dugal équipe bi ci Coupe d'Afrique bi kii di Jacques Bassène moom mooy ka ñu dénk yëf yooyee am na ci yenn loo xam ne nee na ko ak bu Bodian formation dafa nek suñu priorité suñu mbébét la ba tax na daanaka chaque samedi ñu ngi ak entraîneur yi infirmier yi délégué yi ñu ñëpp def formation pour jox leen ay outils techniques pour ñu gëna mëna mën xalé yi ñu dem ci école yi ñu ngi dajalé xalé yi fu ñu leen mën fekk rek partager ak ñom suñu coofeel ci rugby bi même équipe nationale ah bari na ñoo tey mën nañu gën wàll gi Sénégal lañuy lañuy jouer té bu njëkkoon ñom ñëpp danaka France ñaan jógee ñëw jouer donc lolu waré na né formation bi elle se porte bien après ñu ngi ñaan aussi bon comme jafé euh, jafé yi ñi am mooy jafe wàllu koppar ndax jotuñu benn xaalis ci wàllu gouvernement wala ministère des sports donc loolu mooy li ñuy gàllankoor yenn saay waaye yaakaar nañ gàkk-gàkk yooyu bu dañee rek rugby dina gën a mën a jëm kanam échéance bi ñuy waaj nii mooy weeru avril dañu war a dem Tunisie pour jouer coupe d'Afrique daaw joué woon nañ coupe d'Afrique ci euh, Afrique du Sud ñu ngi jëloon troisième ci Afrique donc lu nekkoon résultat bu baax donc ñu ngi dem avril en Tunisie te suñu mébét mooy jël troisième au moins budul dul jël deuxième wala premier loolu mooy suñu objectif semaine bii dinañ commencé entraînement yi ngir gën a tàggat xale yi pour ñu mën a réussir mission boobu ñu am. kooku moom moo di kon euh, Jacques Bassène daal di jeexal ak ñi fare ak waa euh, FC euh, Barcelone. am na nu ab entraîneur bu bees Kike euh, Setien lay euh, wuyoo moo fa wutu Valverde moom nag euh, nu day tekki ndombal tànkam gannaaw ci ba gars yi ñàkkee jëmoon ci super coupe ba boobu nga xam ne nag dañ ko daan football foofa ca Arabie Saoudite te am na ci ay télévision yu nu xabaar ni ca Espagne dañoo lànkoon duñu wane jongante googa ndax dañu doon def promotion moom daal dañu doon siibal réewu euh, arab boobee di euh, Arabie euh, Saoudite waaye nag Arabie Saoudite dafa génne ci koppar yu takku yu mat daanaka ñaar fukki ci ay millions d'euros ngir fayee ko ñeenti équipe ya bokkoon ca googe jongante ngir nu ñëw doon amal yëf yi ci seen réew. loolu nag mooy la nga xam ne daal jot nañ ko xabaar wax itam ci Angleterre dinañu amal dabu armanat bis ni tey ji ñetteel bi tour këpp bi nee nañu Tottenham bu José Mourinho moo ca daje ak Middlesbrough loola boori 20 heures lay nekk Aladji Assane Sadio Mané football Sadio Mané ñoom dañuy nangu la ay bés bee di ñëw dañuy man Liverpool daal buy match daal dinaa yëg ni Angleterre nga yëngu <laughs> bu football nag moom say new xaw ma ca la des jërëjëf Malal ñu ànd ak Hadj Ndate moom xam naa mosul ne footballeur mais nuru na ramasseur quand Ndate Diop wala chronique culture bi dal leen jàmm communauté mouride nekkaat ci sumb liggéey bu mag di ab chantier gannaaw ba ñu taxawalee lii di juma Masalikul Jinaan mu di musée Serigne Touba wala musée du mouridisme bi nga xam Tedd di Touba mu di ab œuvre architecturale bo xamni ni lepp lu xaadimul rasoul yoron wula mu comité de pilotage bi daje demb ak taskatu xibaar yi ci musée des civilisations noires Mamadou Oumar Ba musée Serigne Touba wala musée mouridisme day soxal lepp luy patrimoine matériel bu cheikh bi bu njabootam wala lepp lo xamni ni day laaleeg mouridisme Matar Ndiaye mo jité commission scientifique ak culturelle bu musée bi. musée bi nak du lenn lu may bërëb boo xam dañ fa bëgg fas dajalé lepp lo xamné xam ne ay jumtukaay la yu Serigne Touba Xaadimu Rasuul bayyi ci ko suuf jumtukaay yi nak xeyna li ci gëna fess ni ñu ñi tek ba modi moo yi ak li mu bind ci loxay bopam waaye dinañ ci mën a boolee yi jumtukaayu boppam muy ay waxandeeme ki maal yeeg yépp yi nga xam ne indi na ko liggéey ko indi ko yooyu yépp lañ bëgg a dajale ci benn bërëb objet yu ñuy def ci musée bi dinañ ko jëlee ci ay bërëb yoo xam ni daanaka murit yépp a ko xam tekkiwul na dañooy dem di ko wëri fu nekk ndax lu ci bari nekk na fi ba noppi ndax boo xoolee bërëb yi nga xam ne Serigne Touba jot na faa nekk mu di ca njaareem fi ñaan kër gu mag am na fa ay jumtukaay yu fa jot a bu ngeen demee Touba fu ñu naan bayti am na yu fa jot bu ngeen demee daaree kaamil nous allons penser à nouer des partenariats intermusées au niveau national et au niveau international. donc le musée Serigne Touba sera tout simplement un musée qui servira donc de Canada où il y a une jonction donc du monde oriental occidental et toutes les pensées. Ce sera un lieu de réflexion globale où chacun aura ses idées à donner. Donc on pensera à tout. musée bi Touba koy taxawal ba jamono ji commission scientifique bi culturelle musée Bobu dimension internationale lay Sénégal. Matar Ndiaye. nous dinañ taxawal ab partenariat ak yeneen i ci réew mi ak ci bitim réew musée bu Serigne Touba bi nag dafay nekk lu lëkkale ci wàllum dine ci àdduna bi yëpp bërëb bu jàngat lay doon jëm ci wàll yëpp. donc on pensera à tout. jaa ngeen jëf ci déglu bi fii la ñuy yem dig daje ëllëg ak Ana Rocha.